waa primature jamono ji nag jël nañu dogalub dakkal lépp loo xam ne rek moo di opération foncière yi nga xam ne rek moo soxal fukki site ak benn boobee mesure nag mi ngi soxal diwaan bu ndakaaru diwaan bu Saint-Louis ak ca diwaan bu Mbuur yéenekaay bi di l'info ne xeex bi jëm ci ni ñuy caxat-caxatee suuf si fii ci réew Sénégal waa Descos fu mu toll nii nag ñu ngay soobu ci liggéey bi ginnaaw bi gouvernement bu Sénégal sàkko ñu dakkal lépp loo xam ne rek mooy chantier yi ñu doon amal ci zone géographique bi nga xam ne rek dafa sensible rawatina ci littoral bi waa Descos fu mu toll nii nag ña ngay tàmbali xeex bi jëm ci litige foncier yi nag ci ab note boo xam ne rek fësal nañu ko alxames ji nag patron bu yees bu direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol Amadou Ousmane Ba ma ngay xam ne ni daañu dakkal opération foncière yi nga xam ne rek daañu ko amal jamono ji ci fukki zone ak benn bokk na ci lotissement yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ci BOA bu angaaru pèlerin yi ca zone de recasement 2 bu aéroport de Dakar ca nekk foofee ca VDN bu Dakar Bogène 1 ak Bogène 2 di ay sites yu nekk ca diwaan bu Yoff ak ca terme sud bu Ouakam mesure yooyee itam nag mi ngi soxal pôle urbain bu jak saw Bambilor ca Déni Biram Daw point Sarène ak ca zone Orsapco naka noonu itam lotissement yi nga xam ne rek ñu ngi koy amalee ca Ndiobène Gandiol ga nekk ca Saint-Louis le temps moo yëglekaay dellu soit ci defante bi nga xam ne rek nguurug Sénégal nar na koo defanteeg mafia bi nga xam ne rek ñoom ñooy dogat dogatee suufa Sénégal yéenekaay bi di ne ay dogal yu yees jël nañ ko ñoom kilifay Sénégal ngir dakkal nag lépp luy opération foncière yéenekaay bi dellu soit nag ci zone yi nga xam ne rek moom la soxal mu di Ndakaaru diwaan bu Mbuur diwaan bu Saint-Louis wi point acti nag ne dakkal googee ñu fas yéene dakkal nag ni ñuy caxat-caxatee suuf si waa Descos daañ ci xar seen tànk tubéy Ousmane Sonko fas yéene naa yóbbu yi nga xam ne rek ñoo jege woon régime bi fi nekkoon directeur général bu Descos nag fas yéene naa jëfee dogal yi nga xam ne rek moo bàyyeekoo ci premier ministre jëm ci wàllu suuf sooseeg ni ñu koy dogot dogotee ci yenn zone yi nga xam ne rek gis nañ ne foofee gën a wullee ñaay te nga xam ne rek ay dignitaires yu fi nekkoon ci ancien régime bi ñoo ca teg loxo waral ba yëglekaay bi ne Jomaay Faye ak Ousmane Sonko ndax dañoo justice lum ci mënti doon yër leen boobee yëglekaay l'observateur addu jëmale moom itam ci coowal suuf si nga xam ne rek ñu ngi koy tudd fii ci réewu Sénégal yéenekaay bi yoo xam ne rek ko jural ay ndaw yu bëri yoo xam ne rek boo moytuwulee bi nag fi mu toll nii mi ngi ci ay moment yu difficile yoo xam ne rek moom lay dundee wàllum trésorerie nag fi mu toll nii yegg na teer bi ne Sénégal nag am na lu toll ci 1200 ci ay liggéeykat yoo xam ne rek arrêté nañu nañu leen évidence yëglekaay xëy jii lu jëm ci wàllu audit yi ñu doon amal nag ak ni ko war a jébbalee kilifa yu Sénégal ngir ñu war cee ay dugg prison enquête yëglekaay daal xam ne nag lu jëm ci yorin wi nga xam ne rek moom la ñu woon DGP bu atum jàpp 2020 bi dellu siwaat ci ay révélation yi nga xam ne rek audit bi daal dina koy fësal dérive yi nga xam ne rek am na ci wàllu administratif foncière kii di Diène Farba Sarr ak Seydou Sy Sall waa cour des comptes ñu ngay nga xam ne rek moom la ñu yoree woon yooyee këru liggéeyukaay bu ñu ko xaymaa nag ñu ngay tudd lu toll ci douze milliards ci suñu xaalis les éco tey jii ci lu jëm ci wàllu politique ak lël bi nga xam ne rek doon na ko amal ak ay membres yu bokk ci partem Khalifa Ababacar Sall nag fi mu toll nii mi ngi ci wàccaay ngir taxawal ab coalition bu mag a mag moom xalifa Sall nag ma ngay tànn opposition bi li mu bëgg jamono ji nag mooy dajalewaat ñëpp su ko defee ñu daal di waajal élection législative yi Le Quotidien yëglekaay addu jëmale tey jii nag ci massacre yi ñu amaloon ci caaroy 44 yéenekaay bi ne Sénégal soppi nab kan moom moomee di jëwriñ ju ñu dénk wàllu affaire étrangère nag ma ngay xam ne ni peuple bu Sénégal dina joxe ab version jëm ci histoire boobeek na mu demee si di Sud Quotidien xëyee tey jii ci wàllu jàng jàngale mi atum 2024 jàpp 2025 yéenekaay bi ne dal lañ ci nemmeeku ginnaaw bi état bu Sénégal xamle yoon bi nga xam ne rek bëgg na ko tëral ngir lu jëm ci wàllu jàng meek jàngale mi bokk na ci saytuwaat nag dossier administratif yi nga xam ne rek moo soxal enseignants xam ne rek dañu ko arrêté jëmale ko ci wàllu examen professionnel yi décision yi nga xam ne rek jëm na ci nomination poste de responsabilité yi état bu Sénégal fi mu toll nii nag ma ngay garanti condition yi nga xam ne rek moom la ñu war a duggee ci njàng meeg jàngale mi te du am benn jafe-jafe jëmale ko ci personnel enseignant yi nag mu doon ay mesures yu am solo yoo xam ne rek ñii di syndicaliste yi nag ñu ngi koy rafetlu ak taxawaay bi nga xam ne rek ministère bi leen jaboote moom la fas yéenee taxawee réew mi people la ñuy àddu jëmale tey jii nag mi ngi dalal Pape Moussa Diagne ñu gën koo xamee ci Passa But moom moom moomee nag ma ngay dellu ci cofeel ak expérience bi nga xam ne rek am na ko naka noonu engagement bi nga xam ne rek mi ngi koy amal ci milieu musical bi loolee nag dellu siwaat na ci ak waxtaan wu yaatu wi nga xam ne rek séq na ko ak Anna Thiaw mbokk yi yër leen boobee yëglekaay tàggat yaram la ñuy àddu jëmale stade yëglekaay ma ngay xam ne jongante bi war a dox ci diggante Barça ak Real Madrid tey ji ci samedi ji nag yéenekaay bi di peeko premier classico bu Mikayel Faye jeexale yëglekaay yi la xew ca bu Touba mu di ab taalibe xam ne moom la ñu fekk mu faatu ci